Di xuma dina dagan ndax lingeer du la may dara waye dama lay baye nga nuyu askan bi nuyu waa Sahel waw assalamu alaykum mang len di nuyu Black Queen di nuyu lingeer ak uh, buur di nuyu Mr bachili ak First Lady bi di wax ne amna mbekté ak contenté pour tew sen plateforme bi nga xamna ni moy banjol di capital plateforme mo nga xamanteni amna solo lol. ndegte yena ngay dimbalé ndaw yi rew mi di wax lu nga xamanteni da fay soqali réew mi te yaakaar naa jamono bu ñu toll nii loolu lañ soxla si suñu réew jërë ngeen jëf ah <laughs> eh, Pa Modou nag gannaaw bi nga xamante ne Pa Modou nuyu na ak askan bi eh, man nag fi mu nekk nii aw ma dara lu may def lu may damay daanu ci sa kaw laaj la ay question yoo xamante ne nii daal xaw ma na expect nga ko eh, waaye balaa ñuy sori ci bala ñuy dugg ci question yi dama lay xamal lu tuuti rek ndax yaa ngi gis kii di buur géwél mu ngi bokk caat fii nag ku fi ñëw da ngay yëngu boobu dafa bokk ci suñu rules and regulation yi dëgg neexul. bu jot kon nag eh, mu ngi noonu Pa gis nga noonu noonu la la buur géwél nuyuwaatee eh, nii nag eh, li ko waral mooy dañ lay xamal ne fii balaa nga fiy génn il faut dangay ngay yëngu lii amul fenn ci àddina fii rek la am Sahel Network du ma ne Gambie waaye àddina lay wax. amul benn plateau booy dem ñu lay teeru ak tama. li ko waral mooy Sahel Network. aada ak cosaan dañ koo fonk jiital ko ci lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy def. Euh, ba tax na tey bu ñu waxee journalisme yow xam nga ne suñu waxee journaliste rek di fu nekk ngay dugg rawatina aada ak da ngeen ci def focus bu baax a baax a baax film bi nga xamante ne nii yaa ngi ciy yëngu man óor na ma ne am na loo xamante ne ci sa biir film aada ak cosaan munu cee ñàkk. Euh, ba tax na ñun aada ak cosaan dañ ko fonk lool lool lool moo waral at nekk fii ci suñ plateau gannaaw bi nga xamante ne loolu am na naka dañuy jublu rek ci li nga xamante ne moom mooy question yi ñu la amal Pa Modou tey naka euh, gannaaw bi ñu la dalalee ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti euh, ci li nga xamante ne ni moom mooy film bi nga xamante ne yaa ngi koy def bala ñuy dugg ci journalisme waaw jërëjëf euh, Linguère dinaa sawar lool pour tontu sa laajte bi si wàllum film bi film bi nag ñu ngi ko tuddee family dispute lolu lu tax ñi cuus tur boobu noonu dafa bari ay njëriñ yu fi nek ndegte jamono juñ tollu family problem dafa bari da ngay dem si family nga gis division mu ngi am ñu nga xamanteni dañuy bokku nday bokku bay mhm. wala ndoog ñu bokku bay mhm. te duñ jubo deug la léegi nag ñin as filmmakers mhm. ñin dañ ñëw pour yee askan wi mhm. su fekkee ne nag danga nekk nekk filmmaker te yow looy produce du yee askan wi mhm. kon su eboo nga baax ñin nag buñ toogee ñi gis ne il faut ñi def lu nga xamante ni il faut ñi yee askan wi si lu nga xamante ni mooy xew moo tax ñi génnee family dispute family dispute nag dafay daw si ñaari fànn mooy ngeen nekk ci famille. Mhm. borom kër gi génn àdduna mhm. maanaam baay ji génn àdduna mhm. mu des doom baay yi ak yaay yi si kër gi aji jiitu gi bàyyoom ab alal alal ju sakkan ñu ñëw si wàllu miraas mu të naxari ab coow am si kii bugg kasaara xaalis bi kii bugg a njaay ku nekk buggu am ngiseer bu rëy pour nu muy def xaalis mhm. loolu benn fànn la si film ni mhm. ñi amaat beneen fànn bu nga xamante ni mhm. boobu si wàllum la ñin ñëpp réeréewuñ mbir na sëy yi dafay doon problème si bir kër yi lu ko waral mooy lig léeg nga gis koo bëggu ñi ne ñi may la ko ñi beñ fi ñin film bi dem na ba nga xamante ni loolu concerne la bém asi jafe-jafe di maquetted family maanaam family bu nga xamante dañuy xaajoo si wàllum sëy mhm. yaa ngi dégg su ko defee leading character bi moom dafay doon ko nga xamante ni ku bëgg a sëy la ak jigéen bu mu bëggu mhm. da ngaa gis ne family bu mu bàyyi ñooñu bëgguñ loolu noonu loolu mooy waral jafe-jafe ji waaye nag film bi fu mooy jeexee da nga gis ne jàngale am na nga xamante ni ku si nekk war na si mën a bàyyi xel xam ne ñun ñëpp daal mhm. benn leen te war nañee nanguwante war nañee bàyyi xel war nañuy jàppalante te dàq luy xiiroo ak ŋaayoo ndaxte doon bennoo dara daaxut ko mm-hmm. loolu daal ci summarize mm-hmm. loolu mooy contenu film bi Family Dispute Masya allah Pa Modou eh, nga wax lu am am solo eh, ci li nga xamantene ne ñaari fan la yi nga xamantene ne la ngeen ko def ko mu nek film eh, waye ci bir lolu bëggon na xam tuuti ci li nga xamantene ne nga jotta wax legi parce